waaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu xaj Babacar delloo la nuyoo ak ziar la. jërëjëf Oustaz ñu uh, ànd yow ci yóbbalu bés bi. waaw xaj Babacar yóbbal bi dafay ñëw rekk ci nit ku nga xamante ni dafa am ku koy tëkku mu bëgg sunu boroom musal ko ci tëkku yooyu dañuy wax nag ne ki ñu tëkku mu tiit ak ki ko tëkku xamuñu kan moo ci gën a ñeme sunu boroom. ndax koo xam ne dundam ak wërsëgam dara nekkul ci sa loxo nga di ko tëkku ñàkk a xam sa borom falayam waaye ki ñu tëkku mu tiit nag moo gën a doy waar xaaji Babacar nit bu ko buñ ko tëkkoo mu tiit na teewlu ci xolam rekk wax baat yi bàyyi boromam na wax xasbiyallahu wa ni'mal wakiilu mu teg ca baat yi ala kulli man tajabbara wa takabbara wa nasiya anna allaha akbaru jeex na xasbiya allah wa nicma alwakil ala kulli man tajabbara wa takabbara wa nasiya anna allaha akbaru jeex na na wax loolu benn yoon rekk daal jàpp njaamuram képp ku ko mën tamit di ko wax bis bu ne nga wax ko doonte ñetti yoon la sunu borom dina la musal ci képp ku njëbur ولا موي سونغاتي ولا موي داف لنين حسبي الله ونعم الوكيل على كل من تجبر وتكبر ونسي ان الله اكبر حاج بابكر جيل استاذ مور